wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi shrah li sadri wa yassir li mbokk yi fi teew ñu leen di ziare bu baax a baax di ziar nuyu ñi topp ci chaîne yi nga xam ne ñooy toxal waxtaan wi di leen nuyu ci turu kuréelu liggéeyal ku tedd gi comme niñ ko baaxoo defee saa yu ñu egsee ci waxtu yi di waajal gàmmu gi ñu amal ay jitaay yoo xam ne jitaay yi fàttalante doon jitaay yoo xam ne li ci ëpp ci gàmmu gi lay lay euh, aju waxtaane yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxtaane siiraam la nekkee woon ak i saxaabaam ci waa këram ak nan la yore woon ñi mu jiite woon waxtaanu tey wi nag nekk wi nga xam ne moo ciy mujj ci weeru gàmmu ren wi euh, yi ko jiitu woon waxtaan nañu fi chamail muhammadiya yonente bi alayhi salaatu wasalaam tedd gaam yi ci aju waxtaan nañ ci euh, ki ku bàkki ak alquran ak euh, teggin yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa këram waa wala saxaaba yi moom lañ nekkoon ak moom ak yeneen yoo xam ne jiitu woon na ko waxtaanu tey wi nag ci cadre boobu lay dugg ba tey waaye nag li ñuy waxtaan dafa nekk loo xam ne dañoo gën a jege nekk loo xam ne suñu yëfi boppa muy Touba lañuy waxtaane tubaa démb Touba tey tubaa ëllëg Touba googu nga xam ne ku baax ki da koo sancoon nekk barab boo xam ne dafa bëgg mu nekk barab boo xam ne Euh, day mucc ayib mucc ayib nag mooy l'idéal loo xam ne wàll yëpp boo xool mu gën faa mate nekk barab boo xam ne dañ fay tabaxee nit ci wàllu biiram te mooy ruuxam ak bakkanam di fa nit mu nekk citoyen boo xam bu baax lay doon boo xam day jariñ aw xeetam jariñ tàmbale ci famem jariñ euh, communauté am jariñ am réewam nekk ko amal njariñ adduna kooku mooy ki nga xam ne moom lañ moom la Touba bëgg a tabax kon Touba projet de société lay bëgg a doon ak sotteem yu bari da ciy sottiwaale euh, bu ñuy wax nag projet de société wala ñuy wax ab dëkk boo xam ne day mucc ay day mel ne nit ñi daal dañ ko théoriser philosophie daal dañ ci wax ak ñu dul ñoom da nga faral dégg ñu xam dina fàdd la di wax utopie di wax la cité idéale yëpp ay ay yoo xam ne ay bindikat ñoo fi jaaroon doon ko jéem euh, di ci xel naan nii daal yàpp nañ ne bu ko aw xeet mele wala nii daal bu ko dëkk melee dëkk la boo xam bu wuti ebe doon ku baax nag daf leen na gën a pratique day mel ne dañu gën a pragmatique dafa ñëw taxawal ko def ci lenn loo xam luñ mën a laal la mu nekk lu sotti ci diggante bu gàtt gàtt mu daal defar loo xam ne projet de société boobu da ko defal li tool li nga xam ne tey bu ñu doon def benn projet day am ñu cadrage projet fan la tàmbalee fan la yem laa nga lan moo ci dugg ak lan moo ci génn mu defal ko ab téere boo xam ne lépp loo xam ne namm na ko ci dëkk bi ci lu biir lu ñuy laal ak lu laal wax na ci na ko ci bëggee Matlabul Fawzeyni kon Matlabul Fawzeyni daaw bu ñu fàttalikoo ci jamono jii rek octobre am na téere boo fi génnoon bu amoon solo bu doon wax ñu euh, ngi tuddoon Touba destin d'une ville monde yaakaar noonu la tuddoon euh, sëñ euh, doomi sëñ Bamba Dieye ji ñu tuddati Bamba Dieye jëmam sax <laughs> maa ngi jégalu. Cheikh doomi Cheikh Abdoulaye Dieye sëñ Bamba Dieye day def politique waaye tamit nekk koo xam ne xam-xam ci boobu la jëm di waxtaanee Touba. lan moo war a nekk wàccuwaayam nan lañ ko war a yore maanaam administration mu war a demee liggéey bi nan la fexee ba mu jëm kanam kooku nag li mu doon wax lépp ginnaaw donte tudd na ci aspect yoo xam ne aspect baatin la waaye li ci ëpp mbirum zahir kese loo xam nit ñoo ko war a sottal ndax ku baax la mat la fausi li mu ñaari mbir la am na loo xam ne borom moo koy sottal tu sotti loo xam ne nag ko borom sottal tamit ci ay loxo lay sottee loxo yooyu nag mooy moom ci jëmmam ju baax ji ñëw ginnaaw ba ci ñun ñi ak ñi ñëwul la ci loolu lay sottee loolu nag lañ bëgg a waxtaanee tey di jot a jàll ci Touba lan mooy li nga xam moo moo jot a am ba fii ñu toll ak lan la ñuy xaar ëllëg wala lan lañ nam ëllëg kon gis jotaay bi ñu naa ne dana xaw a orienté tuuti wala camp de décor comme ni ñu koy bu ñu gisee tey dañu fee ànd ak waa bi euh, ànd ci ak Touba ca kanam ànd ci ak loolu yaakaar naa dana leer xam nañ bu baax a baax ne xam-xam ak alal mooy tabax am réew mooy tabax lépp li am euh, am Shawqi doon wax bil ilmi wal maali yab naa sa mu euh, yab na naa sa mulkahumu lam yub na mulkun ala jahlin wa yaqlaali xam-xam ak alal mooy mooy defar am réew Touba ca kanam ñëpp xam nañ ne Euh, ay projet am yëpp yu amam solo la yoo xam ne ay koppar yu baree bari moo koy amal te foofu la woo murid yi indi leen li ngeen am ñu boole ko def ci dara université mi tamit moo ñuy tabaxal nit ki nga xam ne tax bu alal jooju dajee des ko yàq mairie bi ñooy taxaw taxawaayu saytu loolu ñooy nos kon ki fekkee ne ki am xam-xam ñëw na ki am alal ñëw ki ko war nos taxaw jàpp naa ne la ci des mooy nu ñuy fexee rek ba dëppoo ci euh, tomb yi nga xam ne moom lañ bëgg amal waaye amal gi moom lu sotti ba noppi lay nuru kon wala boog lu war a mën a sotti lay doon kon sëñ Mamour Amdi la ñuy njëkk a jox kàddu gi ngir ci fukki miit ak juróom euh, maa ngi jégalu na maa ngi fàttali ne sëñ Mamour bu noppee ak sëñ Fallou Kunta ñoom ñoo ñu war a defal waxtaan wi bu ñu noppee dana am ay contribution yoo xam dana am ci euh, ñi ñu ko àndal waa université bi waa mairie bi ak it waa Touba ci kanam. sëñ Mamour euh, li ñuy njëkk a wax ci fukki miit ak juróom mooy Touba. bu ñu ko sosee ba tey euh, fan la jaar ba egsi fii nii bu ñu xamee fi mu jaar ba egsi fii ñun danañ xam dëgg-dëgg kon lan la ñu war a def ak fan la ñu teg suñu tànk ndax démb moo tax ñu naan tey bu noppee nag suñu fàllu danañu xamal danañu wax ak dana danañu jàngatal dëgg-dëgg lan la ñu war a mën a xaar ëllëg kon ak lan mooy défi yi nga xam moo tax ci kanamu Touba te yoo xam ne jàpp nañ ku ko saafara euh, doxin mucc ayib kon ñaari tomb yooyu ci la waxtaan mooy dem bi Touba ba tey euh, ëllëgi Touba loolu lañu ñu war a waxtaane kon ni ñu tàmbalee rek mooy jox suñu maamoor kàddu gi mu defal ñu benn rappel historique dëgg-dëgg ñu xam tuuba depuis sosoom ci 88 1888 ba tey fan la jaar ba fi mu egsi tey suñu maamoor fukki minute juróom bisimilah. ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mbokki julli yi ak mbokki taalib yi fi teew ci jotaay bépp di leen ziar di leen dokkeel ci weeru màgg wi ñu nekk muy weeru gàmm di ko tàmbalee nag ci Maolana Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi jiite njabootuk sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ziar bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo taxawal jotaay bi di lu am solo di loo xam ne miin nañ ñuy taxawal yu mel nii te képp kuñ ci woo rek dañ laa woo ci yéene la lu baax ak yéene la euh, euh, ba ni ko suñ mu waxee it euh, thème bu am solo la muy Touba démb ak tey ak ëllëg loolu sax xawoon naa ci am jafe-jafe tuuti ci tam bi nañ ko tànnee doon naa ko wax suñ Modou ne ko ndax maanaam démb ak tey ak ëllëg xam naa ni Touba am na loolu waaye luy teqale démb ak tey loolu xaw ma ko moom maanaam fu démb yem ba tey di ko tàmbalee loolu leerul ci man euh, est-ce que démb mooy bi fi suñu mag bi nekkee wala mooy bi mu fi jógee wala mooy bi ñu amagul indépendance yooyu yëpp ay approche la yoo xam ne boo ci taxaw mën ngaa considérer ni li mooy démb ci moo tax ba ma jàpp ne rek ni ma ko fas yéene defee rek mooy ñaari tomb benn bi jëm ci Touba ni fi bi ko sëñ bi sosee ba ni mu fii ba ni mu wujjee boromam leneen li jëm ci yitte yi ñu fi def ginaaw bi fi sëñ bi jógee ndax démb jëkk tey ji dama xam fu ma koy teqalee moo tax euh, temps nag moo mel noonu temps moo jafee moo jafee comprendre ci boppam am na ci borom xam-xam sax kuy wax naan temps bu ñu ko laajut xam na ko waaye saa bu ñu ko laajee xamatut lu muy firi xamatuma ci gaa yi comme doon yaakaar na Socrate wala Saint Augustin yaakaar na la loolu lépp di wane rek ne moom thème bi am na solo léegi kon ci tomb bu njëkk bi te mooy li mu Modou wax dëkk bi sosu gi loolu moom jërul ñu ciy guddal ndax ñëpp xam nañ ne sëriñ bi mi ngi ko sanc ci ginnaaw bi mu wootee yoonu murit jaar Mbàkke Bawol jaar Daaru Salaam ko xamee ba ci njëlbéenu 1306 di 1888 jël sanc dëkk bi Euh, bi mu koy sancit mu doon loo xam ne wër fu ne daa ko sàkk ba bi mu ci jotee mu gëm ne mu wax ne suñ borom euh, li mu doon sàkk suñ borom baaxee na ko ko kon euh, sanc dëkk bi sëriñ bi mi ngi ko sanc kon ci njëlbéen 1306 di 1888 bi mu fi ñëwee sanc ko jëmmi baatu tubaab bi xam ngeen li muy firi bëri na ay wax ci ay xeewal ci feex waaye tënk bi ba ca gën a siiw rek mooy garab gu nekk ci biir aljana la ko sëriñ bi tuddee comme ni nga xamee ne ci yeneen bindam fekk nañ ko fa mu di fa tudd garab googu muy garab gu nekk aljana goo xam ne xéewalee waa aljana gépp dañu ci barkeelu bi mu ko sancee nag nekk fii ci dëkk bi ci Touba gi ay kër la fi amoon xëy na kër gu mag gi sëñ bi dëkkoon moom la tuddee woon Touba kër goo xam ne nee nañ motoon na guddee woon na quatre-vingt-dix mètres yaatoo soixante mètres euh, wala safaan bi quatre-vingt-dix ci ci ci soixante muy kër gu mag gi nga xam ne mooy fii jumaa ji nekk tey bala bu sëñ bi nekk fii la kër gi foofu la féete woon moom la tuddee woon Touba donte turoo moo mujj màgg nag ba ñu koy woowee dëkk bi yëpp ni mu fi amee woon yeneen kër ci biir gox bi fi ñuy wax daal Xudduus nga xam ne kër la woon donte moom it moo mujj màgg ba ñu koy woowee quartier bi kër sëñ Soxna bu nekkoon Daaru Rahman ak Daarul Minan gi nga xam ne mën nañu xam tey te waa kër sëñ Basiru nekk fa nga xam ne tur yooyu mu ko tuddee rek di nga ci déggee yow ne kii kii tuddee barab bii kër yi tur yi am na lu ko tax a jóg te am na lu lu muy wut ndax tur yi am na lu leen boole lépp mi ngi dellu ci suñu borom mi ngi dellu ci kennal yàlla mooy wane ne kon dafay ñëwoon rek ngeen mel ni mbir moomu nga ne mooy sàkk su ngërëmul suñu borom moo tax bi mu agsee mu sant suñu borom chakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maaqani sant naa suñu borom bu baax ndax wamat na ma ba indi ma nag fii nga xam ne yi ma doon gàllankoor moom ci la ko dindee ndax bi mu yegsee moom daa sant nag xam ne li mu doon wut jot na ci ndax ñi ko fi njëkk fekk ci njaboot gi bi mu gisee barab bi rek loolu la leen wax ne fii da ko doon wër fu ne eh, waaye suñu borom baaxee na ko ba xamal ko ne ko fii la nag def lu fi kër ñu def nangami weer mu doog a noppi njaboot gi doog a doog a sanc si kon loolu mooy eh, njëlbeenu sanc gi bi mu ko sancee it eh, sant na borom xam ngeen wax na li nga xam ne moo tax mu sanc dëkk bi de mooy jaamu yàlla ak liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ci mbind yi muy wax suñu borom ne barab bi nga xam ne maa ko sanc ngir jaamu la ci imaan ak islaam ak Euh, am na ci duwaal kabir sax allahuma innaka xutta zimaami ila al ardi lati ixtartaha li ni nga ko xam ne yooyu jëluma ci guddal euh, bëri na fu mu ko wax ba ci raay ya gis nga ci njëlbeen gi bi muy wax ne li nga xam ne borom ma ko bindee ci barab bi nga xam ne dëkkewu fi lu dul ngit ñaar jaamu yàlla ak liggéey liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, loolu di fesal kon gis nga ngeen ba Basiiru sax bi muy wax ci minan bi siñ bi wax ñaar yi tax mu fonk Daaru Salaam ak Touba ne ndax dewuma fa ngir samay suufi maam la woon dewuma fa ngir dafa noonu dafa doon fu neex a bayee dewuma fa it ngir dafa doon fu neex a sàmmee la ma fa yóbboon rek mooy jaamu yàlla te bi isnin minhu waxtiyaar suñu borom moom ma ci joxoon ndigal te moo ma ko tànnal tamit euh, ñaari baal yu ci am solo moo ko jox ndigal te moo ko tànnal euh, loolu kon di wane ne looloo taxoon mu sanc ko te mooy jaamu yàlla ak gindi jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom mu doonoon lu am wàccuwaay lool ci moom moom sëriñ bi gis ngeen sax fi muy wax ne euh, mi ngi ci majmuwa bi loolu di wax ne Touba li tax mu gënal ko ci dëkk yépp ginnaaw Makka ak Madina mooy barab bi suuf si dafa doonoon lu am barke xam ne abraar ak muqarrabuun yi dañ ko bëggoon ñoom ñëpp nee na bëgg ko bi leen ko suñu borom wane wala boog ñu bari si ñoom bëgg ko suñu borom mujj ne suuf si léegi kon yaa tànnal sa bopp ki nga bëgg nee na suuf si tànn ko moom sëriñ bi mu wax tax mu mu bëgg gu rëy googu mu ci am am ko ci xam ngeen gis ngeen bi mu nekkee njaareem sax mujj nañ wax nañ ne mag ñi ku fa jëm boo jaaree fii boo demee boo nee jaar nga Tuubaa bi dañ la gën a jox yitte yow ba xam nañ ko sax boobu daan toxal lu dara ci biir kër gi bu feree bu dee mi ngi fi bu ñuy wax ku jëm ci wet gi dañ naan la xëccal mu jëm ci wet gi jëm Touba ba faaw bu waxee sëñ bi danañ gis ne dana dana muuñ xol bi dana gën a seet tuuti di wane ne rek fonkoon na bu baax euh, dëkk bi mbooleem lim nekk ci yoonu géej gi it li muy sori sori fu mu toll di ñaan boromam mu indiwaat ko Touba yasirtu juwaay li Touba wax mi ni waxi ni azal wara wal tutub li euh, na lu mu ciy wax euh, ci di ko ñaan mu delloo si ko Touba ci fu mu toll ci radiyallaahu anil mawla laa inna nii usni wala xad karam naa li rabbin gafurin xasida yu bare bare yoo xam ne fu mu ci toll rek day ñaan suñu boroom ne ko euh, nang ma may ma dellu Touba te bu ma demee naa fa nekk ak jàmm euh, kon loolu mën nañ cee yamlu rek ci wàccuwaay bi dëkk bi am ak cosaanu sanc gi ni ko suñ Moodu waxee it euh, bëri na ay xalaatkat ay borom xam-xam yu fi jaar ñoo xam ne dëkk bu baax bu tege ci yoon li ñuy wax te idéal xalaat nañ ci rawatina ko mel ne Platon nga xam ne bind na ci lu lu bare bare bëri bana fi lu bëri ci loolu waaye ñooñu li leen wutal ak sëriñ mooy li ñuy def ay utopie la dañu doon xalaat rek ne war naa mën a mel nii ñii dëkkee fii ñii def nii ñii def nii sëñ bi nag moom dafa ñëw jëmmal ko nga xam day jëmmal di yaxal def ci togg loolu maanaam mat la bul faw seen gi sëñ Modou di wax sëñ bi bind ko doog a sanc dëkk bi waaye dafa sanc dëkk bi doo koo bind ci bind ko fii ñu wax ko sëñ Saliou léegi nag mu jaaree ko ci yoonu Seydina Ibrahima alayhi salaam jaaree woon suñu borom mooy ñaan ko lim ci bëgg mooy du wax nit ñi ne leen lii la bëgg ci dëkk bi waaye da koy ñaan borom moom rek bu ko suñu borom lu mu yàgg-yàgg faaw ko tàggatal ñu ko indil defal ko comme ni mu defoon ci yoonu géej gi dem dafa ñaan suñu borom rek mu mu tawféexal ko mu dem liggéey liggéey bi bi ko suñu borom nangulee tàggatal na ko tubaab bi ñu jël ko yóbbu ko mu noppi ñu indiwaat ko nu mel noonu rek la defaat ci ci biir Matlabul Fawzayni euh, fonk ci Touba loolu nga gis ne ci biir Matlabul Fawzayni tur yu wuute la koy tuddee Touba al maskan ad daar al balad euh, nangam di wax maskan di ci di ko indil mudaaf ilayhi loolu lépp di wane ne euh, tur yu bari yooyu mu koy tuddee it bëgg gi ak cofeel gu ëpp gi mu ci am moo tax ba mujj nag ñaan suñ borom ne ko naka ko defal muy aljana ju ne ci kaw suuf ju yóbbu nit ñi ci àljana ñu mag ji nga xam ne moom lañ bëgg wajalhu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala na nga ko def rek muy aljana ju ñu joo xam ne waruwaay lay doon ñu yóbbu ci aljana jële wajal ilaahi maskani tuuba abat mislasmiha bi jaahi xayri man abat maa ngi lay ñaan sama dëkk bi di tuuba nga def ko mel ni turandoom bu ma ko muy garab googu nag ci biir aljana mooy joo xam ne aljana yi kaw suuf nag mooy lool nit da cey jëlee tex ak àdduna ak àllaaxira rek loolu rek la bëgg a wax mu tudd ci ci biir nag mbooleem mbir yi nga xam ne mun a ñàkk ci dëkk lu ci ne sëñ bi ñaan na ci suñu borom ci biir dëkk bi bu ñu xoolee lu mel ne wàllu njàng ci biir Matlabul nii am na lu mat fukki barab ak ñeent yu bokkut yoo xam ne ci nekk sëñ ci ñaan suñu borom ci lu jëm ci wàllu njàng ci dëkk bi buñ demee boo jógee ci wàllu njàng nga jëm ci jaamu yàlla te mooy liñ jàng ñu di ko jafe ndax xam-xamu diine it meññeen ñu di ko jafe da ngay fekk lu mat juróom-ñaar fukki barab ci biir Matlabul Fawzayni yoo xam ne sëñ bi da ci ñaan suñ borom ci lu jëm ci wàllu jaamu jaamu yàlla rek ci biir dëkk bi naka noonu lu jëm ci wàllu jikko jaamu yàlla li muy war a jur ci nit ki mooy jikko yu rafet inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar boo demee da nga fekk lu mat juróom fukki yoon ak ñett yu sëñ bi tudd ci biir Matlabul Fawzayni yoo xam ne ci wàllu jikko rek la ci ñaan ci wàllu jikko yu rafet ci anam yu wuute nag ñaan fi lu jëm ci jàmm ñaan lu jëm ci wér-gu-yaram ñaan fi sax ba mbooloo moo xam ne dañ fiy nekkee di digle lu baax di tere ab safaan muy xëy a boo xam ne rek mbooloo moo xam ne rek al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar la ñuy nekkee ñooñu it mu teg critères yi nga xam ne mënut a ñàkk ci ñoom ngir nit ñi di ko gis ci ñoom ngir ma leen a roy damay gënal nag ginnaaw sëñ Modou 15 minutes la ma wax rek ma bañ a tudd bayit yi euh, ñaan na ci lu jëm ci wàllu économie lu jëm ci wàllu koom fukki yoon ak benn dong nga xam ne loolu du ob du objectif am gis ne bi muy toll ci diine ji euh, mi ngi mi ngi koy ñaan lu mat juróom-ñaar yoon bi mu ñëwee ci wàllu koom fukki yoon ak benn gis ci biir Matlabul Fawzayni ba mu daj loolu ab bind gi ci ne du du du mbirum alal mi moo ko taxoon a jóg Euh, ak yu dul yooyu yoo xam ne mën na ma yem foofu rek ci lu jëm ci Matlabul Fawzayni gi léegi kon sëriñ bi bëgg-bëgg yooyu la amoon ci dëkk bi nekk fi juróom-ñaari at xam ngeen génn fi dem Mbàkke yi noonu la wéyee dem ci géej gi ba ni mu ñëwee jaar fi mu jaar ba bi mu jaar dem si dëkkaatu ci biir Touba moom dëkkaatu fi diggante boobu it Touba xawoon naa wéet lool waaye sëñ bi bi mu demee ci géej gi ba ñëw toll na jamono sax ñuy tere ku fi ne ci mag ñi gis ngeen lettre boobu mu doon borom daaru ci ne bu mënee nekk tubaa moo gën su munta nekk nag fu yàlla dogal baax na muy lettre bi mu njëkk benn doon ko yónnee ñoom borom saam waaye bi mu demee ba ñëw nekk njaareem jamono jooju nag am na ñu ñu yabal ñëw dëkk si fi ñeneen mu yebal leen ci biir dëkk bi ñeneen ñi mu yebal leen ñu sanc fii ci wër agence nationale de la statistique et de la démographie ci mois de mai bi jàll doon nañ def seen i seen i enquête donte génneeguñ ko waaye jàpp nañ ne diggante 2 millions 3 millions moom waa dëkk bi fi ne mat nañ ko loolu euh, dox bu mag la kon ci yaatal gi ñu yaatal dëkk bi ginnaaw sëriñ bi euh, ba fi mu ne kon nga xam ne lu ëpp 2 millions personnes moom ñu ngi fi te loolu am na solo lool ci poids politique bi nga xam ne Touba da koy am maanaam mbooloo mu bari moom fi ne day joué ci euh, da koo am na yeneen yeneen njëriñ yu am ci wàllu géographie bi mooy dëkk bi ni mu yaatu loolu dafa lëkkaloog mbooloo mi xam nga lu mbooloo mi gën a bari dëkk bi di gën a yaatu titre foncier bi nga xam ne moom lañu fi def évolué na ay yoon yoon sëñ ñëw ni ko sëñ Modou Moustapha euh, lijjantee nga xam ne ay 400 hectares sori ko woon évolué na ginnaaw bi yokkaat nañ ko fi laal nañ ko ko 1990 ak 2005 mu jugee ci 400 hectares dem ci 13000 hectares mu jugee mu demaat ci 30000 hectares te jàpp naa ne sax xam naa jombul na ñu ngi ciy dox ngir mu gën a yokk lépp di wane ne yaatal googu ñuy gën a yaatal euh, ci am solo la ndax xam ngeen lotissement yi ñu fi def jamono Sëñ Fàllu wax nañ ne diggante 58 ba 68 lotissé nañ fi lu mat 20 000 parcelles yoo xam ne dañ ko maye. jamono Sëñ Abdou Lahad diggante 68 ba lu mat 80 000 a yokk mu day dimbale bu baax màggaayu dëkk bi day gën a gaaw surtout pàkk yoo xam ne dañ koy maye xëy na mën nañ maa may man ma jaay waaye moom dëkk bi duñ ko jaay ñoom dañ koy maye nga xam ne lu ma deux cent cinquante mille ci ay parcelles yoo xam ne diggante boobu noonu ba 2007 euh, dagg nañ ko ci dëkk bi loolu joué bu baax a baax ci màggaayu bi mu amit nag lu am solo ci loolu maanaam euh, benn benn maanaam vision prospective boo xam ne Cheikhul amoon na ko ci dëkk bi maanaam ruya mustaqbaliya gu mag ci mag ñooñu mu doon yabal ñuy sañ ci dëkk bi day mel ni loolu xam naa mbirum baatin am na ci waaye ci zaahir nii rek am na ay couche yu muy teg yoo xam ne day tax bu ëllëgee li ñuy wax li ñuy wax contrainte d'expansion maanaam luy tax dëkk bi du man a màgg Touba du ko am tey boo demoon Dakar tey ab sibo jazira la maanaam ab presqu'île la benn côté rek la man la am pour génn yeneen côté ndox mi da koo téye Touba loolu dalu ko Touba ay pàkk ñoo ko wër te dëkk yi ko wër yëpp ay dëkk murid la maanaam tey loolu mu waxoon ñi mu njëkkoon yebal ne leen ngeen def juróom-ñaari siifoo maanaam sëñ sëñ sëñ mënu saa dem dem dindi dem astaxfirullah euh, tindoo di muy ma maab sañ Fall dem dindi euh, daaru karim ñëw ne daaru xadim ñëw tàkke sëñ Moroxee noonu ñu wëree noonu bi ñoon groupe bi ngay gis aaliya gis mesere gis dëkk dëkkaan yooyu loolu day tax tey loolu ndimbal la la doon tey jii maanaam ci màggaayu dëkk bi amul lu ko tee dëkk yooyu ay dëkk murit la Touba day waaxu jub ko rek bu bu ko jubee rek dëkk boobu day ñëw rallier day duggaat ci biir dëkk bi Touba wey jàll nga xam ne Daaru Muxti tey mën nga ne ma ngay dox di jëm si Touba tubaa di daw ay jéego yu mag daw jëm Daaru Muxti nga xam ne benn wet nga mën a wax ne Touba am ko tee mooy wetu Mbàkke gi te loolu côté administration bi xëy na moo tax li Mbàkke nekk département ak yeneen ak yeneen waaye même boo dëkkee Mbàkke da ngay xam ne Mbàkke bu dee fii bu bi mooy Mbàkke Touba nii la ko def fi mu ne da ko wër maanaam njaayeen da ngay jéggi te dugg nañ ci Touba ndax ñooñu bu bu bu leen tubaa jubee ñoom ñu dugg ci biir Touba da leen di gënal loolooy waral ba démographie bi ak euh, kii géographie bi ak espace bi di gën a yaatu bu dee lu jëm ci wàllu économie nga xam ne moo tax fi mu ne booy xool euh, ci wàllu mbooloo Touba moo ci wàllu yaatuwaay Touba mbuur lañ koy gam-gam leen mooy xaw a jiitu jiitu Touba tuuti te loolu mën nañ koo comprendre ndax foofu ni mu mel ak usines ya ak wàllu touriste yeeg yooyu noonu ni mu fa mel te Touba amul loolu bu dee bu dee lu jëm ci wàllu wàllu yaatuwaay wàllu mbooloo mu bari nii euh, Touba daanaka mbu euh, dakaar xëy na la ñuy wax ne moom moom moo ci topp te loolu tam neex naa comprendre parce que euh, niñ concentré lépp ci capital bi nga xam ne ñëpp dañuy daw jëm foofu noonu euh, te Touba ñaari dëkk yooyu ñu ko gam-gam leel amul yooyu fee capital bi euh, Touba amul amul capital bi am te teewul yóbbulu ko dara Mbour ni mel ci wàllu touriste euh, te teewut Touba sës ko rek ci wet googu noonu bu dee lu jëm ci wàllu économie bi moom xam ngeen Touba ginnaaw dakaar la ñuy wax ne moo ci topp te ci wàllu production yi dañuy wax ne tuuba moo topp ci dakaar ak Thiès maanaam troisième troisième position la Touba di ñëw foofu bu dee ci wàllu istihlaak mooy consommation Touba ci Dakar lay topp su dee ci wàllu conteneur yi ñëw di wàcc port bu dul yi jaar Sénégal di génnaat ci biti ay Mali ay yooyu Touba moo ne ci ci kaw maa fi ne am na marchandise yoo xam ne Dakar lay wàcc ñu indi ko Touba te Touba la gën a yombee waaw maanaam loolu commerçant yi xam nañ ko mais jaay peut seen xam ne ña am na yoo xam ne Touba gii la gën a yombee loolu góorgóorlu gi ñu góorgóorlu ci wàllu économie euh, may na leen ko bu baax a baax euh, Touba nag doole jooju noonu bokk na ci lépp ko mayit maanaam nit ki li koy boolee Touba dafa bari maanaam ñi ñu woowee waa Touba dafa bari maanaam nit dina bokk Touba ngir fi la juddoo nit dina bokk Touba ngir fi la nit dina bokk Touba ngir pas-pasam loolu mooy wax mooy may lu mel ne Touba ci kanam su ne na ku ne joxe 1000 francs ngir Touba ci kanam murid bu ne da gëm ne Touba nga bokk ndax murid am na yoo xam ne benn murid mooy ko moroomam ku ne jàpp nga ne sa wàll mooy ko kenn loolu dëkk bi ci la bokk loolu kon ba 1977 ñu ubbi ko bu dee ci wàllu diplomatie tubaa dox na ci ay jéego yu am solo rawatina nag bu ñu sukkandikoo ci ñaar muy barabu sëñ Touba mi nga xam ne mi ngi fii ci dëkk bi murid yi mënuñu fee ñàkk ñëw ak ñiy seet si sëñ bi ak magal Touba gi nga xam ne mujj na nekk ndaje bi gën a rëy ci wàllu diine ci gox bi yépp baren ji ñu naan ay 5 millions et nañ fi loolu am na solo lool am na rôle bu dimbale na yoon wi ba ginnaaw sëñ bi ñu liggéey bu baax baax ci wàllu diplomatie ci gën a tasaare yoon ci anam googu it euh, kër sëñ Touba gi ñu ne xam ngeen sëñ Ablaat indi ko fi muy lu am solo loo xam ne xay na tëboon tëb indi fi ay hôtel donte ay hôtel mën na fee ne ci buñ ko cadré buñ encadré ko laa bëgg a wax waaye su su su hôtel ba léegi ko sëñ Tuubaa yi mi ngi fi taxaw taxawaay yoo xam tey bu fi nekkutoon nit ñi dañoo am jafe-jafe gan ñu dalal leen fi tey ñu ngi nii ñun di defee fi waxtaan yi te xalaatuñ lu ñuy fay salle de conférence dara dañuy ñëw def li ñu def gën dem loolu ma googu nga xam ne moo laytaay dëkk bi dimbale na dëkk bi ci anam yépp ci mu dox dox yu gaaw a gaaw a gaaw suñ mo damaa ñaata minute moo des ci fukk ak jeex na kon mën na maa yamale foofu kàddu gi euh, moom mu ngi noonu rek li may wax moom xam naa ne gënuma koo xam kenn moo tax lu ci nekk damay junj rek moo tax yii yëpp bayit di nga xam ne moom la ci sëñ bi wax damay taamu bañ koo wax te tudd ko noonu rek yàlla ndax ngir bañ a guddal waxtaane ginnaaw fukki minute ak juróom lañ ma waxoon te sëñ Modou nee na jeexal naa ko yàgg salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf sëñ Mamour ci kàddu yi am solo yi. xam naa di jégalu dagg gi dagg gi moom dama ko xawutoon ñeme ndaxte daa amoon soo toll foo xam ne doon na jafe lool sax nga nga dagg ko <coughs> eh, li ci parti solo sax mooy chiffre gi lenn lu ci ne am na ay tegtal lu ci ne tamit am na loo xam ne nii la waaye eh, lenn xam naa daal maa xamut moom. dëgg-dëgg est-ce que waa mairie bi ñooñu koy xool ñooñu ñoo ñu koy confirmer waaye consommation tubaa ginnaaw Dakar euh, ak feneen loolu leer na nañu moom bu jiituwul sax li ñuy consommer waaye production bi moom ci laay moo ma xaw a def kii li ñuy wax ça fait tilt dans ma eh, damay sentir na la am na fan fan la ñuy tubaa Touba euh, kii ba tax mu mën a jël deuxième wala troisième ci kii bi waa ginnaaw Thiès. Euh, Thiès moom xamees na ko Thiès ak li ko topp lépp ci euh, mbuur ak ki nangam mag euh, donte produit donte mu tudd sax légume la ak fruits ak yooyu rek daanaka da may ki bari waaye tubaab fu ñu ci produire xam naa foofu dama fi def rek benn point bu ndaw ndaw bu ñu bàyyee xel ne kon réew mi doon na yokk wala boog dëkk bi daana yokk daanaka fukki yoon wala lu ko ëpp ci ci fukki at ak juróom ñu ne 60 76 3000 mille 000 76 ñaar fukki at mu dem 300000 ñuy wax tey ñaari millions ñetti millions ci 2003 loolu day mel ne moo gën a gaaw sax mën naa am croissance démographique bi ñu wax ci Afrique yëpp naan ci nattale 2,5 pour cent la année bu jot. jàpp nañ ne benn croissance bu kii la bu am euh, mu tarit ni ñu koy waxee boo xam ne 2,5 day mel ne fii kon gën naa gaaw loolu bu àggee foofu ñoom benn événement boo xam ne at mu jot dana dajee lu mat juróomi million wala lu ko ëpp. Euh, te ku baax ki xam nañ ne bu wér ne lam bind lépp lu sotti la te wax na ci wàll yépp wax na wàllu jàmm yàlla da koo gën a ñor mbirum biir la tey dafa na ci loo xam ne diggante ak boroom la li nga xam ñu ñoo koy sottal nag mu wax ñu ci tuut daal di yem foofa wàllu wér-gu-yaram wàllu sécurité wàllu jàmm wàllu nangam waa léegi ndax kon dëgg-dëgg suñu fàllu suñu 5 millions yooyu di ñëw at mu jot ak ñaari millions ak ñett ñoo yi fi yi fi dëkk seen ëllëg ndax jotul yaakaar na ñu ci sax waaye lan moo leen di xaar daal lan moo leen di xaar ngir que ñun mu leer na ñu mën a assurer ne démb moom ja baaxoon na tayit mi ngi baax ñu ñuy fexee ba ëllëg dara duñu ëpp doole ñu fexe ba loola li ñu soxla ci wér-gu-yaram ñu fexee ci wàllu jàmm lu ñu wax ci wàllu sécurité ñu wàllu ci wàllu yépp mu nekk loo xam day leer lu ñu attan la loolu laa lay joxe micro bi nga wax ñu lan kon yan défi wala boog yan perspective la ñu xaar Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min shaytaani bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp te di leen siyaare di leen ndokkeel ci weer wi ñu ne ak bis guddi gi ñu dëgmal di ñaanal Cheikh Mamadou leen Mountakha yàgg fi lool te wér sëñ foofu nga daaneele muy bi nga samp loolu laay tuddee défi bi nga xam ne moom lañu war a relever ndax dañ ne dañuy waxtaan ci perspective yi mooy ëllëgu Touba waaye soo bëggee xam perspective yi foo nga xam lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk suñ kanam nga xam ne euh, solution yi ñu ciy indi moom la ñu woowee perspective jafe-jafe yooyu nag jàpp naa ne benn rek la boo xam ne day jur yeneen benn bi mooy démographie la maanaam mbooloo moo xam ne day bàbbeeku jëm si Touba wala Touba di màgg jëm fekk si leen loolu nag mooy jur soxla yoo xam ne soxla yu bees lay doon ndax lu Touba daan am benn mu doy ko bu mbooloo mi nga xam ne kon dañuy soxla ay fajukaay dañuy soxla ay dañuy soxla ay yoon dañuy soxla ay bërëb yi lu loo xam ne mbooloo mi mi yokk mooy tax euh, soxla boobu soxla boobu dikk kon ci ëllëgu Touba lan mooy li nga xam ne war nañ koo teg wala ñi ngi koy teg ngir mën a euh, jàmmarloo ak jafe-jafe boobu bu doon da koo laaj ci réewum Sénégal may dem xool kii fi nekk di président de la république ma xool lan mooy politique am nga xam ne moom nee na am na lu mu woowee plan Sénégal émergent defe naa nga xam ne ci la tënk li mu nam ma liggéey ci senegal ci at yii di noonu rek laa def itam ci dëkk bii di Touba xool Cheikh mun Mountakha mu fi nekk lan mooy gis-gisam ci ëllëgu Touba ci sama jàngat mu mel ni am na ay joxañ yoo xam ne def na ko ma jàpp ne bu ñu ko toppee danañ mën a gis ay solution yu baree bari ndax bi suñ Mountakha dikkee li mu njëkk a teg bokk na ci ab université université boobu dañuy fu ñu sàkkoo xam-xam la waaye ni suñ sëñ Mamor indee sànq xam-xam du lu bees ci Touba suñu taxaa indiw fi xam-xam université bi indiw fi xam bees mooy ubbeeku goo xam ne université bi na ko ci muy ay xam-xam yoo xam ne jàpp nañ ne yu bees la ci Touba muy ay xam-xam yoo xam ne jàppoon nañ ne boo jàngut tubaab xëy na doo ko doo ko mën a xam muy jëm ci wàllu agriculture wàllu science technologie nangam ak nangam ñu indi ko Touba man joxoñ boobu damay jàpp ne ab joxañ la jëm ci li ñu woowee expertise ndax bari na jafe-jafe yu am yoo xam ne amaan amaana li koy gàllankoor maanaam bañ a nekk am koom bu ñu jëlee rek misaal ci problème mu jafe-jafe ndox moo xam ndox mi taala wala ndox mu manqué li ko li koy jafe bi dëgg-dëgg nekkul ci dañoo amul koom buñ ko ndax suñu mataxaa ku ñëwoon ne ko indil ko rapport ne ko nangam mooy tax problème yi jeex loolu kon du taxaw waaye jàpp naa ne ñàkk xam-xam bu leer ci mbir mi bokk na ci li nga xam ne mooy tax jafe-jafe yooyu di am kon université bi ab joxañ la ci nañu gën a jox gëdd wàllu expertise wàllu xam-xam ci lépp bépp euh, naal bu ñu naal bépp liggéey bu ñu liggéey ñu jiital ci ay expert experts yi nag ak fu ñu mën a jóge muy ubbeeku gi mën a wax sànq fu ñu mën a jógee rek Touba soxla soxla leen ñu indi leen ngir ñu mën a jàpp ci liggéey boobu loolu jàpp naa ne bokk na ci li nga xam ne danañu dimbale bu baax a baax ci ci liggéey boobu te Sëriñ Muntaxa moo teg euh, xalaat boobu beneen joxañ boo xam ne ba léegi suñu Muntaxa joxañ nañu ko mooy ay weer ci ginnaaw woolu na état bu Sénégal ñi nga xam ne ñoo leen fi teewal ci wàllu sécurité muy police ak gendarmerie jébbal leen sécurité dëkk bi loolu ba léegi ab joxañ la muy suñu diggante ak état ndax am na lu ñenn ci waa dëkk bi di wax mooy ne dañoo tubaab wër te soxla état wala Touba mënal na boppam nangam ak nangam fekk demeewul noonu maanaam Touba mënut te ñàkk a jëflanteeg état li ñu war a teg ci taabal ji kay mooy suñu jëflanteeg état naka lay war a demee kon rapport boobu defe naa ne mënuñu ko ñàkk teg ndax am na ci loo xam ne Touba mënal na ko boppam waaye am na ci loo xam ne ala kulli alin faw état bi dana ci jàpp faaw état bi dugal ci loxoom loolu ba léegi. di duggaat ci li li li ñu doon wax sànq li nga doon laaj bi nga samp ci wàllu production wàllu industrie mën nañu ko waxee noonu day mel ne état bu Sénégal Touba moom loolu bokkul ci li mu jàpp ne war na fi am nga xam ne li Touba di màgg màgg li Touba di rëy rëy rëy amul benn politique état boo xam ne jëm na ci nu ñuy fexee ba yokk production bi ci Touba amu fi loolu jàpp naa ne ñoom yaakaar gi ñu yaakaar ni Touba moom dëkkub diine képp képp képp képp la moo moo waral mel noonu nga xam ne ñoom. yàpp jàpp nañ ne daal tubaa moom li ñu war a dox seen diggante ak ñoom mooy màggal ba màggal ñu ñëw euh, dimbale euh, sëriñ si ci màggal gi bu noppee dellu ba déwén nga xam ne daal xalaatuñ ne tubaa ay nit ñu maanaam ni suñ suñ Mamadou am di waxee léegi lu man ñetti millions yi sénégalais lañ ñoo xam ne dañoo bokk ci réew mi am fi ay àq am fi yelleef lépp lu nguur gi di def dañ ca war a gis seen bopp waaye waruñu leen jàppee ñoo xam ne rek amuñu benn soxla budul euh, jumaa ji rek. mooy mooy mooy seen yitte wala jaa ngi xasida ak yooyu waaye comme dafa am ñu fi ñu fi yeewoo am lu ñu soxla état bi loolu da ko war a xam boo ko defee kon suñu diggante ak état bi lu ñu war a lu ñu war a xoolaat la ay rapport lu ñu war a euh, niiraat la donc loolu jàpp naa ne dina bokk ci perspective yi nga xam ne danañu danañu danañu dimbali bu baax a baax ci euh, défi yooyu nga xam ne moom la ñuy jànkonteel waaye beneen joxañ boo xam ne sëñ mu taxa joxañaan nañu ko mooy Euh, Baye Fall yi jébbat leen li nga xam ne moom la fi tere xam ne loolu moo jëm ci wàllu euh, su ma mënee wax développement spirituel nga xam ne moom du mbirum économie rek ko yitteel waaye itam cosaanu Tuubaa moom mooy defar nit ki maanaam sëñ bi bi mu koy sañ ci fu mu làqatoo di fa di fa defar aw nit la ci jublu woon kon defar nit googu mooy jële fi lépp loo xam ne lu bon la euh, taxawaay boobu ci sëñ Muntaxa am nga xam ne eh, ginnaaw bi mu ko séddalee ndax bi man damaa jàpp ne eh, woo gi mu woo police gendarmerie jox leen sécurité bi woowaat Baye Fall jox leen li muy tere ñu bari dañoo jàpp ne da koo jëlee ci ñu joxaat ko nii waaye day ñaari mbir yu bokkul ndax sécurité moom état rek moo ko mën a yor amaa nag li nga xam ne moom la ñuy tere ci dëkk bi moom tubaar rek lañ koy teree loolu état mënu koo yor état mënu ci dara moo tax mu jël ñoo xam ne ñoom gëm nañ ne loolu waru fee mën a am mu jox leen liggéey boobu ngeen ñu saytu ko kon loolu ab joxoñ la boo xam ne dañ ko war a topp ni ñu koy toppee mooy euh, xool ñooñu nga xam ne sëriñ bi jox na leen liggéey bi nu ñu leen di dimbalee ci wàllu formation masalan maanaam ñu ngeen leen a ci wàllu euh, ordre maanaam naka la ñuy fexee ba li sëñ bi bañ ci dëkk bi bañ fay am te xëy na loraange du ci juddoo loolu defe naa ne mooy li nga xam ne ci wàll woowu euh, fa la liggéey bi war a war a jëm euh, waaye sëriñ bi amaat tamit leneen loo xam ne euh, joxoñaan nañu ko te mu nekk ay mbokki taalibe yoo xam ne dañoo jug ci seen pasteef ak seen pas-pas euh, sumb ko muy tubaa ca kanam ak yu mel noonu mu ànd ak ñoom ci lool loolu nekk loo xam ne li muy ne rek mooy murid yi nekk dëkk tubaa wala boog waa Touba bokk ñoom ñoo war kenn ku nekk xam ne lii liy jagal Touba ci yow la war a ci yow la war a jóge maanaam kenn bañ a xaar kenn ci dara da wax naa léegi ne état danañ ko soxla ci lu baree bari waaye li nga xam ne moo ëpp a def mooy xaar état xaar état mooy boo gisee jafe-jafe nga jàpp ne état ko war a def nga téye sa loxo waaye kenn ku nekk boo xoolee ne fii kat am na jafe-jafe lii manqué na wala lii ñi ma doon doxee doxewu ko nga jël ay initiative muy esprit d'initiative bi nga xam ne moom moo am ci ci ci ci ci kuréel yu mel ne Touba ca kanam loolu bu yaatu woon ci ay domaines yu bare bari ndax xëy na Touba ca kanam am na ay domaines yu mu ciblé waaye bu ñeneen ciblé woon yeneen i domaines yoo xam ne ñoom itam ci la ñuy liggéey loolu dana gën a dana gën a yombal liggéey bi nga xam ne moom na sëriñ bi di liggéey kon daal sëñ Modou maanaam ay ay ay ay piste ngi noonu yoo xam ne jàpp naa ne ki nga xam ne moom mooy définir politique gu Touba ndax ba doon bu doon réew naan njiitu réew mi moom mooy définir la politique de la nation waaye dëkk bii di Touba itam euh, sëriñ bi moom mooy définir politique Touba maanaam moom mooy joxañ ni mu bëggee Touba Touba Touba doxee nii te loolu moom euh, des desu ci ginnaaw xëy na bu dee ñun suñu gouvernement yi dañuy bind lu bare bari di jëf lu néew moom nag day mel ne day jëf lu bare bari di bind lu tuuti wala sax di bañ a bind xam ne kon euh, muy muy muy muy pasteefu solo si jëf ci yoonu murit nga xam ne xëy na lu bari dañu ko théoriser waaye dafay nekk nii nga gis ko teg mën cee teg mën cee teg sa dama loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo ëpp solo te moo jar a wëyal ngir jafe-jafe yi nga xam ne moom lañuy ñuy jànkonteel ñu mën koo ñu mën koo ñu mën koo ñu mën koo am na ñu ko songee am soobee yàlla waaw xam naa foofu laay taxawandi xam bu amee ay laaj ak yooyu. jërëjëfat Sëñ Fallou jazaakumullaahu kulla xeer wa yi am na solo lool sax. kon daal fekkee ne sañes na ko tënkee nii mooy ne perspective yi wala bokk ëllëgi Touba tey Touba moo koy leeral fii nga xam ne fi lañ toll ni ku baax ki def ay joxañ joxañ bi ci gën a mag mooy joxañ jam leen jàngi defal leen jàngukaay jam leen jàng ndax ñu xam nu ñu yore euh, suñu bopp nan lañ yore dëkk bi nan lañ yore lépp lu aju ci euh, suñu jëm d'abord suñu jëm euh, waaye yaakaar naa suñu fàllu ñàkkut ci mbooloo mi ñi mag ñenn ci ñoom seen xel doon dem ci eh, loo xam daa mel daa xewul mel ne eh, statut spécial ñu ngi koy tudd eh, ndax loolu sañees na ko dugal ci perspective yi nga xam ne ni luy xaar dëkk bi la ndax lu lu ñu war a am la suñ bi jëm tudd na ko ba am lu mu fi ñëpp commentaire yi bari woon autonomie la wala indépendance la moo gën a xam nam ci jublu waaye daal xam na ne ñàkkut lu mu jotee ak seen spécial bi ñu bi ñu wax tudd nga diggante Touba ak euh, état état central réew mi nan la ci war a taxawee ndax dëgg-dëgg waa Touba bu ñu dee def seen initiative yoo xam dañuy am lu day defal seen bopp ndax day tax ñu war leen bàyyee ñuy kese wala am na loo xam moom rek moo ko sañ. Euh, tudd nga fi tamit xéer goo xam ne borom dëkk bi noonu la xéere ci taxawul dëkk bi te waa dëkk bi taxawul ko seen bopp am na yu muy dénk Touba ci kanam am ñu dénk Baye Fall yi am na ñu dénk ñeneen ak ñeneen waaye ñooñu ñëpp day mel ni soxla nañ ku leen gunge wala déet. Euh, loolu yaakaar na danañu yóbbu peut-être waa Touba kanam danañ ci leeral tubaa ñuy wax assainissement màggal gi jaar yaakaar naa defi bu mag a mag la woon ci seetlu nañ ko ñu bare bari ñu ngi koy ñu ngi koy tudd di ñu ngi tudd ndoxum Touba ñu ngi tudd yeneen ak yeneen xam naa ne suñu fàllu euh, dinaa joxaat suñu Maam Mor kàddu gi pour juróomi minute balaa fekkee ne am na lu mu bëgg dolli wala bokk day tëj bu la ko delloo see du ñàkk am ci loo xam ne da nga ci da nga ko da nga ko jéem a yenn brèche yu ndaw ndawaan rek yoo xam ne da nga xaw a laytaayal waa Touba Ca Kanam bu ñu amee lu ñu mën a dolli ak waa mairie bi bisimilah sëñ Mamour fekkee ne am na loo ci bëgg a dolli. waaw koy jërëjëf sëñ Modou ñu ngi sant bu baax sëñ Fallou ci eh, kàddu yi am solo yi nga xam ne yëkkati na ko eh, li ma ci dolli bariwul bu dee lu jëm ci wàllu chiffres yi ma doon joxe rek loolu laa bëggoon a wax ne yenn yi ku ci gën a ku ci bëgg gëstu yu gën a xóot mën naa dellu ci lu mel ne eh, gëstu yi suñu am satu jaxate defoon loolu delluwaay la ci mën nañ cee fekk lu bari wala docteur Cheikh Guèye Ndar moom tamit bind na ci livre def na ci lu am solo euh, ci wàllu démographie bi sax maa ngi fàttaliku am na fu mu ciy junj ne année 1960 yi jamono jooju démographie bi ñu ngi doon yokk at mu jot mbooloo mi ay 13 pour cent waaye ñu demee ba ay 76 yooyu ba ñu defar nattaat bi mbir mi dafa yokk anam gox goo xam ne doon dem ay 43 pour cent nga xam ne léegi loolu ay années yu néew la ko def xëy na taxaw su ko wéyee loolu moom loolu mën naa bañ a baax ci dëkk bi ci màgg. Euh, kon loolu loolu laa ci bëggoon a yokk ci anam googu rek bu dee nag ci dëkk bi fii mu toll nii moom euh, ci tëj rek euh, moom niñ ko gisee dëkk la boo xam ne dëkk bu bëri mbooloo la waaye dëkk bu bëri ay ndaw la dëkk bu bëri ay ndaw la loolu laal na ci xaadir bi muy fi ñu toll waaye laal na ci mustaxbal bi tamit ndax xam nga Sénégal ci boppam rek dañuy wax naan ñi am diggante 18 jàpp jàpp 75 pour ay 71 pour cent lañ su pour cent lañ nekk léegi nag ku wax ndaw loolu ñaari atu la maanaam mën naa nekk atu waaye mën naa nekk tamit luy gàllankoor bu fekkee orientation amul bu fekkee jàngale amul bu fekkee métier amut mën naa mujj indi ay jafe ay ay ay ay jafe ci ci kanam loolu moom lu mat a bàyyi xel la ci eh, ñu xool nu leen di cadré muy ndaw ñi ndax dañoo bari macha allah eh, te loolu day doy doy na rek génn ci biti foo dem rek ndaw ñi ëpp màggal gi ndaw ñi ëpp cant yi ndaw ñi ëpp marché yi ndaw ñi parce que dañoo ëpp ci ci ci ci ci société bi moo tax. Euh, loolu kon mm, gis naa ne moom lu mat a bàyyi xel la yoo xam ne it euh, ëllëgi Touba gi moom euh, man li ma ci gis rek mooy jàpp naa ne dëkk la boo xam ne doole ji moom day gën di yokk ci anam gu ne ndax li taxoon mu am doole lool ba léegi dafay nekk te dafa gën a jëm kanam lenn nag moom lu ci mënta ñàkk la xam naa ne ginnaaw sëñ bi objectif yi taxoon mu mu mu sañ ci dëkk bi wax na ko loolu ñi yore njiit gi faaw ñu di ko bàyyi xel saa su ne. bu ma nee njiit gi nag ci anam yëpp laa wax rek mairie beeg kuréeli daayira yeeg ñëpp ci la bokk ci ku ne anam ngam ne mu xool nu mu ca mën a jàppee ci lépp ñu di ko delloowaat ci objectif euh, général bi nga xam ne moo taxoon sëñ bi sañ ci dëkk bi euh, te mooy jaamu yàlla mooy mooy jëf lu baax. Euh, daayira yi nga xam ne ñoo fi nekk don doon levier yu am solo yoo xam ne dimbali na Touba tey gis nañ fi ay ay ay yu bari yoo xam ne ay daayira ñoo ko fi taxawal. da ngay commencé ci daayira yu njëkk yi boo xoolee lu mel ne Matlabul Fawzayni gis nga ko Sëriñ Tuubaa gi ñu daal mën naan gis nga hôpital Matlabul Fawzayni bi euh, waa Hizbu euh, kanam moom ñooy ñooy misaal bi gën a jege fi mu toll nii ci anam yëpp euh, ci taxawaay am solo yu ñuy def loolu it waa Rawdu nañ noonu ci xam-xam donte ñuy yëngu ci xam-xam bari na Al Wafa ñu fi ba ci kuréel gi ñu dajale fii kuréel yooyu it war nañoo xool ñoom seen biir nu ñu mën a organiser ba bay ànd di liggéey maanaam ay xidma jamaa yi xidma collectif war naa mën am yoo xam ne dañuy ànd tey tey ci misaal téere bii dafa war a génn Touba ci kanam moo ñëw mook raw dara yaaxe ñoo ko seex raw dara yaaxe ne ko bind Touba ci kanam ñoo ko muul génne ñu bind ci ne noonu la demee te yàqu dara ci kenn ku nekk sa objectif yi nga amoon ak plan yi nga doon déroulé dañuy ànd def dara bu ñu noppee weer day mel ne ndigal yu mag yi Sëñ joxu ko génn kër ñëpp dañoo ñëw jàpp ci te du dee ñu ne da ngay wéyal lañ doon def kon kuréel yu bari yi nga xam ne am nañ ay ay ressources ci anam yu wuute war nañoo mën a xool nu ñu ma àndee nu ñu mën a àndee ngir liggéey loolu it dana doon njariñ ci ci dëkk bi waaye it ñu am ay vision prospective maanaam ruya mustaqbaliya di xool ci lu sori loolu it yaakaar naa baax na ci dina dina tax plan yi ñuy teg ñu xam euh, nu ñu koy déroulé euh, waaye lu munta ñàkk nag ci dëkk bi mooy moom ñuy am planification stratégique planification stratégique maanaam taxtiit boo xam ne stratégie lay doon di xool awlawi yi priorité yi yi nga xam ne ñooy priorité yan la loolu suñu mën taxaa jàng na lu am solo bi mu nekkee ci université bi wax na ne su ma ci su lu woon ak daara ji de su ma ci noppee rek damay song ndox mi ngir Lac de ñëw ci dëkk bi fan yooyu sax murid yu xër yi doon nañ def ay affiche di ko dugal ci facebook bi mu waxaat ne waxutoon loolu da doon wax ne nag bu waaye dañoo ne ci daara ji dañu ba noppi doog dem ci leneen kon loolu it donte lépp lu am solo la loolu bu ñu doon bu ñu ko doon bàyyi xel ci ci ci projet yi ñuy teg danañu dimbale ndax léeg-léeg songandoo mbir yu bari dina tax ba résultat yi ngay bëgg a dëgg-dëgg euh, dina xaw a manqué. Euh, loolu daal yaakaar naa mën naa bokk ci euh, yi nga xam ne mën nañ cee dimbali ko daayira yu mag yi nekk ci dëkk bi it bu ñu doon góorgóorlu ci wàllu waqf ak ci wàllu investissement dimbale. léeg nga gis fi daayira yu mag yoo xam ne dañu ne ci yoon wi di réaliser yu rëy ba ñëpp teg ci bët mais day mujj def nii parce que xam nga dajale xaalis mënut a wéy fi ne dajale nii mënut a doon luy wéy jëm fu kenn xamut moo tax booy dajalee il faut ngay xoolaat ci genn wet gi foo xam ne da nga fa def investissement yu am ay revenu yu am euh, yaakaar naa li ma bëgg a ñëpp xam nañ ko yaakaar naa ko daal euh, waaye loolu lu lu mënta ñàkk la yaakaar naa parce que loolu loolu ak ci histoire yoon daf ñoo dal lu bari yoo xam day dem ba àgg ci sommet bi waaye day mujj day wàccaat te li koy indi mooy day mujj day am foo xam ne foo àggee day taxaw daal waaw il faut ñu yeesalaat mbir yi sinon rek du mën a continuer loolu yaakaar naa yu mënta ñàkk la ci mbir yi ak euh, rek ñun ñëpp xam ne rek dëkk bi moom sëriñ bi moom li mu fi bëggoon euh, waxoon na ko suñu borom euh, te mooy mu defal ko ko muy aljane bi ne ci kaw suuf yoo xam ne dañ ciy jaare dem ci aljana ba jële lool nag suñu borom nangul na ko sëñ bi te faaw dina am muy wajaal ilaahi maskani tuba abad mislasmiha bi jaayi xayri man abad waaye nag ku ne ci ñun rek day góorgóorlu def kem kàttanam ngir ñaan gi bokk ci ñi muy nangoo ci ci seeni ci seeni loxo euh, ñoo ngi jégalu bu baax xam naa li ma wax jombul jaxasoo na sax waaye li ma bëgg a wax rek mooy yëf yi wax dëgg tege na ci yoon woo xam ne yaakaar mën na ci am ci anam gu wér ndax xam-xam bi am na fi alal ji am na fi nit ñu nangu te nangu koo def am na fi nos gi daal moom mooy mooy des tuuti ci genn wér gi léeg-léeg rek ci anam yëpp nag moom ñun dafa bokk ci suñuy défi moom yi gën a ñàng nosu ci anam yëpp nag anam yëpp yaakaar naa ni ñu toogee ci waxtaan rek soo xoolee xam ne am nañ problème mu na ma kuréel gi baal daal waxuma dara mais loolu fépp la ni ñu toogee nii rek boo xoolee am nañ problème xam ne am nañ problème nosu ñu denc da ngay tiit juróom-ñaari nit mën nañoo tiim néew bi kenn du diglu te ñoo bokk lu ñu bëgg a wax mais kenn diglu sa morom boo demoon ko Sëriñ Muntaxa di xam coow lu mu doon li ñu diglu loolu nag fépp la fépp la maanaam loolu damaa joxe ay misaal noonu rek waaye fépp noonu la boo demoon ko sëriñ boo dem rek dafa mel ni ñàkk a nos te loolu daf ñoo dab it nag loolu moom dañoo dab Sëriñ Tuubaa mi fi nekkee moom lu nosu la fi bawoon ba bi muy jógee fii di dem Mbàkke Baari rek dafay wàcc Sëriñ Mbàkke Buso fii ci dëkk bi yóbbaale borom daal moo ci ak sëñ daam Abdourahmane Lo kii di jàngal alxuraan kii di jàngal xam-xam moom muy servir loolu noosu foofu la mën a yem kon loolu suñu suñu demee ba jàpp ne yoo ak murid mooy ñàkk noosu rek mooy loolu lu ñu dab la waaye nekkutoon ci ci cosaan euh, maa ngi jégalu nag wax ji lu ci dëng rek moom ci man la lu ci jubit gaa ñi lu jub rek lañ bëggoon ko ko wax maa ngi jégalu lu baax euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Mor yàlla nañu yàlla defal tawféex ñu bokk ci koy sottal barke borom Tuubaa kon suñu Fallou boo amee loo ci kii lu daanee la rek. suñu sëñ Modou xanaa li ci dolli kay mooy lu jëm ci exode spécial bi nga doon wax nga xam ne moom dafa yitteel Cheikh mu Mountakha ba mu tudd ko ba mu wax ko moom loolu moom fa la ah, woo mën a yam waaw moom fi ne kenn mënut a wax ne ndax sëñ bi bëgg na ko kenn mënut ko laajati ndax wax na ne bëgg na ko léegi exode spécial nag euh, li am mooy tubaabam moom spécial na ba noppi waaw. waaye estatu boo ko déggee rek mooy lu xaatim lu ñu bind la ci ci wàllu yoon boo déggee ñun estatu rek mooy loo xam ne dañ ko def ci ab texte moo xam texte constitutionnel la wala texte loi loolu nag fi ne moo ci des mooy gàllankoor gi loolu nag ñi ngi ñi ngi dox jëm ca ndax euh, bokk na mën naa ko tudd sànq sax ndax bokk na ci jéego yi nga xam ne si Sëriñ Mountakha jël na ko jël na lu mat ñetti avocat yoo xam ne bindal na leen defal na leen mandat boo xam ne Eh, da leen jël def leen daanaka mën nañoo wax ne ñuy avocat murid avocat Touba waaw kenn ki yàlla dogal na muy eh, maître Souley Makoddu eh, moom laay liggéeyal loolu waaw ñoom ñi ngi xëy na ñi ngi tàmbalee xalaat ci lu mel noonu jëm ci statut bi ndax day laaj ab liggéey bu xaw a yàgg tuuti ndax liñ ci war a dugal day bari ndax dañoo bëgg buñ ko defee ba noppi bu ñu ko joxee assemblée national kenn dootu mën a amati loo ci loo loo ciy wax ndax dëkk bi ni mu dafa bari yoo xam ne ay gàllankoor la lu jëm ci statut spécial waaye fii ak ñuy àgg ca loola nga xam ne loolu moom suñu kanam la ne li am moom mooy fi mu ne Touba moom dëkk bu spécial la boo xam ne eh, eh, li li li ci ëpp solo mooy nguur gi nangul nañu spécial spécificité boobu nangul nañu Touba spécial na ba lu bare bari nangul nañu ko tubaa te nangul luñ ko ñu bare bari loolu xam ne. Euh, diplomatie la waaye am na ci loo xam ne loi la maanaam tubaa dafa am titre foncier te titre foncier moom mooy kër te kër moom dafa am loo xam ne yoon moo ne kër sañ nit ki borom kër gi sañ na ko def waaw borom kër gi sañ na lu bari baree bari ci këram loo loolu lépp nag bu amoon essai spécial nag moom day gën a euh, day gën a leer rek maanaam euh, jagleek tubaa day gën a day day gën a leer waaye du caagi ne esset bi il faut que am ko ngir Touba mën a mën a am ak jagle li ma bëgg wax mooy li ñun juristes yi li ñu woowee euh, acte déclaratif maanaam am na ay actes yoo xam ne euh, day déclaré waaye am na acte yoo xam ne day day constaté rek yoo xam ne moom daanaka day day ñëw fekk loo xam ne lu am la ba noppi mu gën koo gën koo dëgëral rek gën koo gën koo dëggal donc kon exercice bi loolu lañ koy jàppee rek waaye nag du loo xam ne moom faaw dañ koy am ngir ñu mën a nangu ni tubaa Touba Touba lu dafa dafa spécial. kon loolu laa ci bëggoon yokk nga xam ne nag loolu nag moom comme mi ngi ci xelu sëriñ bi ba mu génne ko ci kàddoom ba am ay nit yoo xam ne ñi ngi ciy tàmbalee xalaat di ci gëstu jàpp naa ne loolu moom incha allah dana bokk ci yi nga xam ne moom Touba dina ko am bu soobee suñu borom jërëjëf suñu fàllu jazakumullahu kullu xeer euh, am na solo lool euh, di tamit euh, sant bu baax ci xibaar bu am solo boobu comme day mel ni ñi ñi ngi ciy dox te bu sottee mën naa gën a jur njëriñ yaakaar naa suñu maamoor tam am na lenn lu mu tudd moom it ci perspective yi fi am euh, fekkee ne dëkk bi dafay yokk fu mu toll fekkee ne mas naa àgg ci benn jamono 40 43 pour cent jàpp naa loolu moom du ma wax ne amul euh, waaye bëriwul fu muy am 43 pour cent démographie démographie bu yokk noonu te ñëpp euh, bu noppee di doon ay ndaw yoo xam ne du mu gàtt gàtt ëpp na 63 pour cent ci ñi fi dëkkee jàpp naa ay ndaw moom mënut a nekk dul njëriñ waaye nag ngir mu nekk njëriñ dañ leen di nos. Euh, di leen joyanti di leen orienté pour que ñu xam fa nañu teg seen tànk suñ mboot ne jàng nee jàng amul kër amul euh, askan amul dara ñëpp war a jàng waaye teewul ba léegi ñuy gis ci dëkk ba ne xale yaa ngi dawale saret ñi fi gis xeeti indiscipline yoo xam ne dara warulu ko lu weesu ñàkk xam dong la waaye buñ ko leen tegoon ci yoon ñu xam ko ñëpp ndax ñëpp waajoon na ngir mën a xam ñëpp waajoon ngir mën a jub ñëpp waa waaj na ngir mën a tege ci yoon jàpp naa ko ne am na koo xam daal ñëpp la war a noo dëkk bi wér mu tàmbalee ba léegi daanaka lépp li fi xew nguur gi def na lu bari du ma wax mukk ni defu fi xaw ma lim def fan tam li xaw fi mu yem waaye daal xam naa ne daayira yi ak ñi nga xam initiative citoyenne laa leen may tuddee bari na fi yoo xam ne ñoo ko amalal seen bopp jàpp naa nag bu ñuy defal seen bopp nag gi mën am ci nguur mënut am ci yooyu yii nag war nañoo nosu nguur gi tam war leen mën a jàppale loolu yaakaar na ne euh, ay mbir yu am la sëñ bi yi mu tuddal boppam ay la yoo xam ne ay projet la ko tudde léegi mooy mooy toll suñu PSE fekkee sañee sa ko tudde noonu ay naal la yoo xam ne fii la tollagun fii la jëm fii la jëm yi nga xam ne nag sëñ bi tudd ko waaye ñoo jàpp ne sëñ bi war na koo bëgg ñu nekk ca nag jàpp na am na nosu boo xam xam ne laaj na ko xam naa ci gàttal daal foofu la ñuy yemale waxtaan wi di sëñ Mamoor daangi la daanale ñoom dañuy wax leer na nañ lépp lu ci leen maa ko leen ma daat moo sax bëgguma ci sax di ci def yenn commentaire fii bi dañuy jox euh, ñenn ci ñi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi te tey waa mairie bi teew fi waa Touba ci kanam teew fi ñu jox euh, Baye Sëriñ Mbacke Mara jox ko kàddu gi ngir mu wax ci turu mairie bi bu ñàkk yenn ci yi nga xam ne ñu koy tudd fii dañ mën a apporter ay Euh, dañ koy jox kàddu gi ci juróom minute bu amee lum ci bëgg a def comme contribution wala ay leeral wala yu ni mel bàyyi ginnaaw bi ñu ziyaare mbooleem assistance bi fi nekk xam naa waxtaan wi moom daanaka euh, ginnaaw bi nga xamee ni sëñ sëriñ si jiitu ci waxtaan wi wax nañ ba pare jàpp naa ne lu bari ñoom leeral nañ euh, mu am ci lu ndaw nag loo xam ni xëy na dañoo interpellé lu mel ne euh, mairie Touba te itam à juste raison dañuy la war a interpellé sëriñ bi itam wax ci eh, autonomie bi sëriñ bi waxoon mais kenn ku ne xam na ne sëriñ Mountakha ay waxam neexut a firi ndax moom suy wax autonomie diggante autonomie bi am na lu fi jaar muy statut spécial boobu ngeen wax waaye avant statut spécial itam am na lu fi nekk loo xam ne nii mooy gouverner dëkk bi mais man euh, jàpp naa ne gouvernance boobu dafa obsolète muy mairie bi ni muy gouverner dëkk bi jàpp naa ne dañ ci war a xalaataat Euh, war nañu xalaataat ci tànn tànnin wi d'abord ni ñuy tànn ñi nga xam ne ñooy représenté mairie bi ndax su fekkee dañoo wax ne dañuy tànn ñi war a représenté mairie bi ñu ne kër gu nekk nañu dem jël fa ñaari nit ñu représenté mairie bi est-ce que ñaari nit ñiy jël ci kër bi am nañ compétence bi wala rigueur bi nga xam ne nii moo ci war représenté leen. yoon bii passé ni ñu ko tànnee kenn ku ne xam na ne le maire euh, jëloon na décision wut mbooloo mu àndal. pour liggéey ci mairie bi mais loolu dañ ko koo gàntal tànn bii paase muy euh, maire bi sëriñ bi moo ko tànn waaye kenn ku ne xam na ne tànnin wi itam dañoo dem élection mais bi ñu demee élection le maire à été battu à plus de quatre-vingts pour cent waaye teewul mu nekk fi kon ko maire bi sëriñ bi moo ko bi waaye bi mu ko imposé waa dëkk bi ba pare dafa wëlbatiku aussi tànn ay adjoint au maire yoo xam donc su fekkee jëf ji ñu war a jëf ak euh, conseil yi jëf nañ ko problème warta am parce que maire bi kenn nit dong la ñu tànn ko ci tànnin woo xam ne démocratie dañ ko waluñu ko ko tànn tànnin woo xam ne c'est antidémocratique parce que population ñu dem élection ñu gagné la quatre-vingt pour cent ñoo la yaa fi toog loolu kepp loolu kenn xam ne ne c'est tout sauf la démocratie loolu moom du démocratie waaye bi ñu ko defee ba pare nag ñu ko aussi tànnal ko nag ñu war a àndal mais ñi war a àndal li ñu wax maire bi mooy yéen ñi nga xam ne da ngeen war a ànd ak maire bi muy 17 adjoint au maire ngeen war a ànd ak maire bi maire bi amul munta def lu ko neex dox su fekkee jafe-jafe am na jafe-jafe boobu du ci maire bi ci ñun ñëpp la waaye nag rawatina nag les 17 adjoints au maire parce que ñoom. ñoo ñooy ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ tànn ne ko dirige leen mais niñ ko tànn itam loolu c'est trop démocratique tànn maire moom c'est pas démocratique mais tànn ñu tànn les adjoints maire moom parce que dañoo ni ñu koy tànnee ñu ne kër yi nga xam ne mooy kër mag yi nga xam ne mooy kër sëñ Tuubaa yi nañ fa jël fenn fu ne benn adjoint au maire kenn dem kër sëñ Fàllu jël fa ñaar dem kër sëñ Mourtala jël fa jël fa jël fa ba mu àgg ñu tànn kër Cheikh Ibra ak kër sëñ Massamba mais loolu c'est démocratique donc dëkk bi problème bu fi nit am am na ko la ko jooyal soo amee problème Darou Khoudoss tey xam nga ne ne am na benn adjoint au maire boo xam ne Darou Khoudoss la représenté donc dama jàpp ne su dëkk bi baaxee nga xam ne normal na du maire dong su normal nag ñun ñëpp la moom waaye moom su fekkoon ñun ni ñu war a doxee lan doxee. moom mënut a def mënut a dindi parce que noo ko ëpp doole mais malheureusement tànn nuy tax na wax dëgg yàlla ni dëkk bi war a demee noonu loolu mooy li nga xam ni moom loolu lu mat a xalaataat la beneen bi ci des itam mooy rapport bi Sénégal am Touba am ak euh, euh, état état ñoo ngi tollu actuellement ci quatre mille cinq cent milliards budget ñu nekk ni Touba am na deux millions de personnes mais Touba ñaata école publique moo fi nekk. mën nañu wax ne presque benn école publique moo fi nekk mais pa mais 4500 euh, euh, milliards loolu tontine la parce que budget tontine la dañuy teg rek di teggi mais Touba ci wàll googu duñ teg dara donc jàpp naa ne li nga xam ne par exemple dafa waroon a dem ci euh, éco tabax ay école former ay enseignants indi leen ci dëkk bi loolu dañ ko waroon a walbatiku nag kon reversé ko ci les 2000 daara yi nga xam ne moo fi nekk taxaw leen parce que suñu xaalis la noo ko moom beneen bi ci des mooy. Euh, dëkk bi aussi ni muy doxe dafa dëkk bi mooy dëkk bi gën a naqaree waxee ci adduna parce que saa yooy wax am na nit ñoo xam ne suñ lay déglu li yàqu ci wax ji rek la ñuy déglu waaye li ci baax seen yoon nekku ci li wax ku yàqu ci wax ji la ñuy déglu pour utiliser ko donc ñun aussi am nañ problème mooy euh, Serigne Modou Moustapha moo fi nekk le premier xalif général des Mourides mais kenn ku ne xam na ne sëñ Modou Moustapha ni mu yoroon Mouride yi mais ak ni a yore Mouride yi wala ni mu mën a yore mais du bokk.

amoon na ay yéene ci dëkk bii di Touba Touba li sëriñ bi wax euh, Mamor wàllu assainissement mais loolu sëriñ Saliou préparé woon na ko parce que Touba dafa am ay jamono yoo xam ne nii américains yi dañ leen doon espionné di leen espionné parce que euh, nombre de euh, lignes téléphoniques yi fiy dugg investissement yi xaalis bi bari na bari bu dee ak mu jaaxal américains yi ñu ne ñii est-ce que liñ nekk leer na. ñu leen espionné pendant des années bi ñu demee ba xam ne li ñu nekk li leer ñu déclassifié photo yooyu photo yooyu moom la Serigne Saliou jël fay ci cent quatre-vingt-cinq millions pour def assainissement Touba parce que dafa waxoon ne gis nga lii mu dal nii ci màggal gi su fekkoon dañoo defoon continuité du mu dal ndax Serigne Saliou dafa waxoon ne nañ fexe ba trente bi am assainissement su ko amee ba pare ñu waajal corniche bi mu am assainissement. su ko ACM amee ba pare ñu waajal cent vingt mètres bi waajal deux cent mètres bi nga xam ne ëllëg si biir ndox yi jóge Touba est ouest nord sud yëpp dañ fiy jël su ko defee dañ fa mën a culture maraîchère donc mais est-ce que continuité am na foofu parce que il faut que continuité am continuité mooy Serigne Saliou bi mu fi jógee am na ay naal yu mu fi bàyyi am na ñu mu ci waxal ndax man am na dama Serigne moo ko woo ma mardi ci guddi ne ko dama laa soxla bi ñu ñëwee ne ko sëriñ Saliou nee na daf la soxla suba ci mercredi daf ne ki ñu yónni dafa juum mais sëriñ Saliou du recevoir mercredi mais ma ne ah mais est-ce que may du ma def erreur kon naa dem rek su fekkee sëriñ bi ah yàlla dogal na maanaam njuumte amut ma gis sëriñ bi su njuumte amee ñu xam ne kon noonu la demee nee na bi mu ñëwee 7 heures fekk sëriñ Saliou toog ci mercredi bi di ko xaar mu ñëw mënal na ko xam naa am nga ci jaaxle de. mu ne ko waa Mbàkke ndax mercredi waaye mu ne ko tey dama laa soxla li tax ma soxla nag dëkk bii moo tax ma soxla la ndax danoo bari lu fi ànd naan ko maag yow te ma bëgg lu mën a xew yow del wax dëgg te sama jàpp sama jataay tey jii maa yow yaakaar na dootu amati ci àdduna mais donc kooku mu ngi doon waajal dëkk bi noonu ma ko waxee noonu noonu la amee am ñeneen ñu mu waxal te lu la waaye mën a wax ci àdduna Sëriñ Saaliw amul koo ko gën a bëgg dëkk bi amul koo ko gën a xam. amul ku ko gën a bëgg a yi donc continuité boobu su amoon fii ñu dal mën nañoo bañ a am continuité dafa war a am li nga wax ni c'est très grave mais mënuñ su ko bañ ñàkk wax parce que dañoo waxtaan man kër gii ñu nekk diggante 89 2017 laa fi mos a duggaat bi waa Touba ci kanam di def seen conférence amul lu ñuy woote nag ci dëkk bi loo xam ne danaa ci dem lu ñu waxee Touba fu ñu waxtaanee Touba danaa fa dem su ma fa demee itam danaa wax la ma xam dana ak du neex ça importe peu. mais dama jàpp ne dëkk bii moom wax dëgg yàlla su dee saayir si la saayir si moom nekkul ci ay loxo loolu moom c'est clair. loolu nag mooy li nga xam ne <laughs> wax dëgg yàlla xam naa ne eh, nong nga sa micro waaye nag man eh, noonu laa maa ngi ziare bu baax a baax tey. Eh, di jaajëfal ci kàddu yi kàddu yi ñoo ko ñoo ko déggandoo yaakaar naa amul luñ ci interprété amul luñ ci leeralaat leer nañ léegi nag liñ ci bàyyi xel rek mooy ne kuréelu ku tedd gi moo moo mooy mooy def moo woote ndaje bi pour tëj jataayu waxtaan yi mu doon amal ci weer wi mairie bi lañ ko àndal ak Touba ci kan ak waa université kàddu gi jàll léegi kàddu gu waa mairie bi la waaw waaye moom moo fi teewal mairie bi kàddu si Mbàkke Mara moo wax ci pour mairie bi am na interpellation yu bare bari yoo xam ne def na ko ak euh, yu wax yu bare bari na nga xam ne kàddu mairie bi la. waa Touba <laughs> kuréelu ku tedd ki tamit nag euh, dañuy wéyal waxtaan bi <laughs> xam na euh, ci programme bi ni mu ni mu tëdde woon am nañ juróom minute ngir Touba ci kanam ñoom waa ci kanam seen taxawaay ci dëkk wax dëgg yàlla taxawaay sax ci yoon wi laay wax ndax it ñoom euh, dëkk bi dañuy liggéeyal waaye nag ñi ko àndal du waa dëkk bi dong mën waa dëkk bi ndax waa dëkk bi ñooy murid waaw waa euh, dañuy jox kàddu gi suñu Abdou Fattah Gueye euh, rek moom it mu sànni ci ay kàddu bismillah seen Fattah juróom dee tax aoudu billah bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di ziyaare kuréelu liggéeykatu ku tedd ki jaajëfal leen ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci weeru gàmm wi di sant yàlla bu baax ci teewaay bi waaye di jànge lu bare bari ci waxtaan wi nga xam ne fi mu ne nii sax bi ma sëñ Modou wooyee bi mu wooyee Touba ca kanam ñu déey ma ne ma jógal xaw na maa mu tiit ndax niveau bi kawe na kawe goo xam ne jàpp naa ne euh, wóorutoonu mujjee ci kuréelu Touba ca kanam ndax dana xanaa ñaan yàlla mu dimbali ñu ci rek xam naa wet gi ñu ciy waxee rek euh, sëñ Modou ginnaaw bi ñu jaajëfalee sëñ moo rek sëñ Fallou mi ci kàddu yu am solo yi ak sëñ Bakki Mara dafay jëm ci euh, xëy na li ñuy wax ëllëg perspective donte sax boo koy wax mën ngaa laalaat tuuti ci ginnaaw nii sëñ maam moo doon waxee léegi ci temps noo koy déterminer loolu xaw naa kii ndax booy wax sax ci ëllëgu Touba ëllëgu yam fan ngay wax ndax dëkk yi nga xam ne ci àdduna bi réew yi nga xam ne dañoo développé ba noppi di topp seen développement ak lijjanti dañuy topp bi ay saf yoo dañ naan fii ak dat sàngam fii sàngam bëgg nañoo àgg bërëb sàngam ay horizon nangam la ñuy wax euh, xay na loolu bu fekkonte ne ci loolu lañ ko jëmee mën nañoo sukkandiku ci loolu ngir wax ci du tee ñu mën koo sàkkal suñu bopp ndax damay faral di wax ne fi ne toll nañ ci tolluwaay boo xam ne mën nañoo dimbali génneewaat gis gis yi yeewaat yëg-yëg yi ba ñu mën a gën a xoolaat tolluwaay bi ak li ci suñ li ci suñ kanam te nag dañuy sukkandiku li ci ginnaaw fi mu ne nii diggante Touba ak nguur gi fi nekk ak état ci gàttal faw mu laaj ab xoolaat sëñ Fallou junj ko léegi li tax ma ko màggug Tuubaa ci fii ak ñi fiy tux waaye màggug ci ni muy yaatoo di sëñ Amoor ñëw ci ci anam gu gu gu gu ma sax bëgg mu wéelaat waxtaan woowu bu fekkee mën nañ ko amaat ci moom ci geneen anam ndax ndax normal kii dafa am solo bu ñu xoolee màggoo gaaw gi mu gaaw dafa jiitoo lu baree baree bari li ñuy wax ay services sociaux de base li nga xam ne askan wu nekk mënuñ koo ñàkk ngir seen dund mën a ñoŋ màggug dëkk bi ci mbooloo màggug dëkk bi ci yaatuwaay li mu ko jiitoo dafa jéggi dayoo jiitu gu bari googu mu fa mu mu mu ko jiitoo te jéggi dayoo loolu nag loolu moo sabab dëkk bi li ëpp ci euh, réalisation yi ñu def ci wàllu infrastructure li ci ëpp dañ koy def ci dañuy def de manière day ay ay ay action la ñuy def waaye defuñu ay action lu tax loolu mooy dañuy dem ba mu ne kët ne jonn ba pexe amatut ñu tëb def benn réaction réaction yooyu moo jur Touba ca kanam Touba ca kanam ci ci yooyu la juddoo waaye dafay dox bi ñuy dox maanaam dox bi dëkk biy dox jiitu gim jiitu li mu li ko war a gunge loolu dafa sabab léeg-léeg yi ko war a gunge noonu di ñëw di bàyyi ko ci état ci misaal yéex na lool yi ko war a gunge dafa yéex yëmut ci yéex waaye daf caa boole dafa tuuti daf caa boole léeg-léeg du am qualité bi mu war a am lu tax loolu di am mooy. dañ koy yittewoo yittewoo goo xam ne bu agsee day mel ne dañ koy tokkamtiku di di ko di ko di ko yàkkaliku de telle sorte que rôle bi ci war pour ñu xool ko ak tal ko moom euh, projet boobu ñuy réaliser day xaw a des mën naa ci joxe misaal actuellement nii ñu ngi doog pare ci euh, tali corniche bi nekk treize kilomètres ñu ci euh, dix milliards jaar na projet état bi ñuy tuddee Promoville bi muy ñëw yaa war nañ ko ndax xam nañ ne rokaat boobu soxla na loolu ñu defar ko def ko tali wante li liñ ñu ci diggoon nga xam ne dafa waroon nekk ñaari tali am assainissement ak yeneen ya ci aju yàkkamti guñ ko yàkkamti woon tax na namm guñ ko namm tax na ci waroon aju aju ci ba ba noppi ngay xool la lay jur ak ndax dëgg sax mën nañ koo jariñoo ndax jaar na ci vingt un point xam ne la boppam liñ ci jot dañ koo colmaté ci assainissement bi fi nekkoon mu doonaal beneen jafe-jafe gën a feesaat mooy projet ñëw dafa tuuti fekk ñu yàkkamti ko te bu ñëwee du nekk qualité bi mu war a am loolu nag bu ànd ak dëkk bi moom kon ne di màgg di dem kon faw jafe-jafe am moo tax euh, bu ñu laajee ne Touba fi mu jot a jaar ba agsi fii ak ëllëgam man bu may xalaat ñii di wax ci xel sama xel mu gàtt képp rek dama ëllëg ji daal wax dëgg daal lëndëm ci man lëndëm tolluwaayu dëkk bi lëndëm na ci man ci màggaay bi ak doxin weeg yi ci aju waaye nag léeg-léeg da ngay doxal ba mu yàgg nga gis ne mën na leeraat na li tax muy leeraat mooy dangay jàpp ne bu ñu sukkandikoo ci li jot a weesu léegi nag kon war nañoo bàyyi xel li ci suñ kanam ni ñuy bàyyee xel li ci suñ kanam da ngay xam ne kon bu li ñuy toog di ko xaar ci état dëgg la mënut ñàkk mu koy def ci dëkk bi ndax dëkk boo xam ne benn événement nga fay am buy def chiffre d'affaires deux cent milliards par at ci li gën a néew ci li ñu wax 250 milliards boo xooloon TVA donte taxe bari na ay xeet mais boo jëloon lu mel ne TVA 40 milliards lay tolloon xëy na 250 milliards yooyu bu ci amoon benn somme bu tuuti bu fi ci dëkk bi nekk li significatif mën naa romb fii waaye li tax ma ci ma ci ma ci amaat yaakaar mooy ne dina tax ñu gis nekkoon kon ginnaaw dëkk bi mënta ñàkk nag kon taalibe yi dugal ci seen loxo ndax dëkk la boo xam ne defe naa docteur Cheikh Gueye mi ngi doon tudd léegi wax na ko ne c'est une ville par des dëkk la boo xam ne amul bâtiment colonial jeex amul jeexitalu tubaab bi lu nee lii moo ko fi tabaxoon wala investissement étranger boo xam ne moo ñëw ci dëkk bi dugal ci loxoom moo xam bailleur de fonds la wala keneen kon li fi nekk lépp benn day loo xam ne mi ngi jóge ci taalibe yi te loolu mooy li gën a fës ànd ko ki fi nekkal sëriñ bi wala mooy loo xam ne état ko fi def xanaa juróomi minute bi sax na waaw kon xam naa dañuy yëkkat jotaay bi rek euh, bu nodd gi daanoo ñu julli te jëlaat fukki minute ak juróom gën jaa bari ngir àggale ci desoon rek. rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala muhammadin wa sallim taslima uh, ñu ngi leen nuyu baax mbokk yi doon amoon mbégte lool di leen uh, wanale ak waxtaan ak wala jotaay uh, taxawaay yi nga xam ne kuréelu liggéeyal ku tedd gi ñoo koy amal ci weeru gàmm gi ginnaaw bi ñu amee ay taxawaay yu am solo ci màggal gi ñu amoon ay taxawaay itam yoo xam ne ci gàmm gi la jëm waajtaay wi ñu amaloon ci ñu ci ñeenti jotaay Euh, ñett yu njëkk ya nga xam ne ñàkkul ne toppoon ngeen ko ci média yi ba ca jiitu woon mooy achamail muhammadiya fi kitaabaati Cheikh Khadim maanaam jikko yonent bi yim làmbool ci mbind Cheikhul Khadim ñu àndoon teg si ni Abdul Xaadir bu Sayd Cheikh ñaareel jotaay bi nga xam ne euh, defoon nañ ko te moo doon aadabu saxaaba ma annabi sallallahu alayhi wa sallam ñu àndoon teg si Ahmadou Mbacke Darou Mouhty ñetteel jotaay bi demoon ci Cheikhul Khadim wal Qur'an al Karim ñu àndoon ci ak euh, waa ji taxaw doon di wax ak yéen Euh, tey doon ñeenteelu jotaay bi nga xam ne moo tëj waxtaanee te mooy jotaay bu mag bi ñu doon ci waxtaanee nag xew-xewu jamono mooy Touba tolluwaay bi maanaam fa mu jógee fi mu agsi ba fi mu agsi ak euh, liñ ci war a mën a séentu ëllëg ci ay jafe-jafe ak lan mooy taxawaay yi nga xam ne moom lañ ca war a taxaw. Euh, ñu àndoon ci ak tey sëñ Mamour Amdi ñu koy sant bu baax a baax ak sëñ fàllu Mbacke Kunta di sant tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci mairie Touba bi sëñ Mbacke Mara teewoon na fi. indi na ci ay euh, leeral yu bëree bëri ak sëñ Abdou Fatah Guèye nga xam moo nekk ci Touba ci kanam waa Touba ci kanam yëpp teew ñoom wala boog kilifa yi Touba ci kanam yu bëri teew ci ma sant bu baax a baax di leen wax rek ne kuréel liggéey ko tedd gi ci liggéey ci la nekk saa su nekk di euh, fexe ba lépp lu njàngaleem sëriñ bi ñu taxaw ci ba mu tesaaroo ci bak Cheikhul Khadim ci ci ci ci dara yi Cheikhul Khadim nag lañ koy amee ndax sëriñ bi moo ñuy dimbali ci taxawaay yi ñuy taxaw yëpp kon daal loolu moo nekkoon jotaay yi nga xam ne moom lañ doon taxawal ci kàmm gi yëpp di joxe daje incha allah ci fan yu néew ndax kuréel gi moom daanaka du teggi tànkam li fekk mi ngi koy man wasalaamaaleykum wa rahmatullah